lula neex neex na ma te loo bëgg bëgg naa ko loo bañ bëggu ma man te loo bëgg bëgg naa ko. Aram salaamaaleykum. maaleykum salaam di jëm axu. <laughs> alhamdulilah. tey du ma la yëkkati tey ma taxaw. tey ma taxaw. parce que damay bañ xam nga après. <laughs> naka naka naka naka naka Sénégal. ça va ça va ça va nag ça va ça ça va alhamdulilah. ma bàyyi leen nga nuyu internet yi. waaw maa ngi nuyu waa senegal mhm. di nuyu euh, waa Dakar Info yëpp ak euh, waa Sénégal internet yi képp. nga xam ne yaa ngi toog tey di seetaan émission bi maa ngi lay nuyu di la remercier ci invitation bi. di ma remercier ci invitation bi. Mhm. maa ngi lay jaajëfal Arame euh, Thioye album bi génn na. pas officiellement. ndax yaa ngi xaar mais jot nga koo joxe. Eh, yenn rajo yeeg ban écho nga si am. macha allah mm. vraiment macha allah jox bon joxe guma ko sax si rajo yi sax ñu bëri parce que ci jour conférence de presse bi ñi ñi ñëwoon rek laa ko jotoon a mm. jox mais ba léegi am na ñu ma koy laaj sax mais xam naa dinaa leen ko jox parce que fan yi dama busy trop trop trop trop moo tax. aw aw ma sax temps bu may toog pour jéem a lijjanti loolu mais xam naa dinaa si jublu léegi incha allah avant la sortie de l' album bëgg naa ani euh, yi fi nekk yëpp ñu am ko. ok euh, waxtaan si li nga xam ni vidéo yi nga xam ne génne nga ko. Mhm. Euh, My Lover ak Sénégal émergent. Mhm. dañuy décortiquer l'album. album bi tey suñu ñëwee déjà am nañu fi ñaata titres on a huit titres ah. huit titres tey da nga di may loo ba nga di mhm. jàngal ni mbooloo Sénégal émergent eh, borom nga dem mixé ko eh, sama am sa defa ko sa doom mhm. ah, bintu Euh, si c'était à refaire également tamit eh, nga def également sama waay. waay muy huit titres yi nga xam ni ban genre wala yan genre musical la ñu a fekk si biir. waaw am na mbalaax am na afrobeat am na soft music mhm. am na slow am na musique cubaine. musique cubaine. Mhm. Euh, variété musicale variété musicale moo ci nekk. Euh, lan moo la may loolu euh, <laughs> boobu c'est vrai que ni arab n'était même pas 100% mbalax même fi nekkee ah. mais léegi je pense que am na yeneen yoo si <laughs> polyvalence ko may. waaw xam nga musique nag moom toujours da ngay jàng. Mhm. du ko jamais donc toujours ay expérience la yoo xamante ni da nga koy dund. yàlla def nag bi ma demee US aussi mu dimbali ma. mu am yoo xam ne dama dama ko fa jëlee jàngaat lu bëri daal vraiment moo tax album bi ku koy déglu da ngay sentir parce que ñi ko jot a déglu yëpp écho boobu la ñu am c'est c'est vraiment aram plus parce que bokkul ak aram bi fi nekkoon donc euh, donc euh, il y a de technique musicales ci biir c'est bien fait c'est bien truc donc donc li li ma ci recevoir yëpp c'est positif mais nag li ma ko may euh, je peux dire que euh, ouverture bi ma am ci sama musique la mm. li nga xamante ne aussi dama ko jàngaat aussi aussi m'a beaucoup servi en parlant d'ouverture euh, si sa conférence de presse bi gis nañu également la présence du professeur Massamba Massamba Gueye ah, gis présence également Père Ouza <laughs> Père Ouza eh, bokk na si ñi Pen eh, sa côté Salam Diallo ak Mame Gor Diazaka mm-hmm. donc euh, tey Massamba professeur ak ku mel ne Père Ousa eh, lan la eh, c'est lan mooy rapport bi <laughs> eh, tey gise pen gis nañu liggéey bi mu si def mën nga mhm. ñëw un tout si li nga xam jii yokk nga ko si si yokk waaw euh, xam nga nag Fadel moom mooy moom moo doon def sama conférence de presse presque moom moo ko organisé mhm. donc euh, moom moo jot sax ma Massamba Gueye parce que da ko wax ni que Aram dafa génn benn album qui parle de Sénégal émergent mhm. boo xam naa moom tam mu sentir ci boppam euh, Fadel mu invité ko mu ñëw avec plaisir donc euh, père Ouza man maa ko contacté parce que moom sama père dafa yàgg moom moom bañ na ko ba nenni tuuti la may wax gisee moom vraiment c'est lui qui a guidé premier pas ci biir musique bi bi bi ma ciy dugg bokk na ci ki nga xam ne euh, jàppale na ma ci torop ci côté presse parce que la majorité yi nga xamante ni fii ci bi may commencé ñooñu ñooñu ñoo doon bind ci aram gise pen moo ko dox donc donc kóol la rek boo xamante ni dama leen ko joxaat euh, le cas de Salam moom je l'ai connu depuis may jàng école yàgg na waaw boobu moom mii ngi tëgg sabar boobu on était même pas ba ndax moom donc am am na suñu benn foyer boo xamante ni salaam sax ako tëgg bokk voilà donc loo loolu yàgg na maam góor moom euh, Euh, peut-être am na lu tax rek ma invité ko parce que dama gis dama gis caractère am neex ma mu dëggu ci li muy wax te sénégalais ñemewuñu ko dëggu boo dëggoo rek y'a problème donc ma xaw bon ma gis na nag ne am na peut-être jikko boo xamante ni niroo nañ ko tuuti ma sentir ko rek te moom c'était même pas prévu biñ ne suba la conférence de presse bi ci laa ci waxtaan ak sama jëkkër mu ne ma waamee woo ko ci laa jël sama téléphone rek woo ko et puis. Euh, mu recevoir ko nice parce que dama ko war rek mu ne ma incha allah dinaa ñëw et c'est ce qu'il a fait y a bon y a aussi juste justice rappeur donc y avait ñeneen ñoo xamante ni que ñu ngi fi mm-hmm. peut-être ñi ñooñu rek a toogoon sama wet voilà voilà voilà. bu ñu si côté contenu côté euh, bind texte euh, parce que tamit album musicalement am na ñu ko yor. mooy des mm-hmm. instrumentistes. Mm-hmm. mais yow côté voice voix ak li nga xam ne mooy texte yaa ko yor euh, tey si si bind mi. ndax am na euh, benn wala ñaar yi nga xam tey mën nga ñu si décortiquer euh, lu bokkul ak mbëggeel yi donc euh, lan lan nga ñu mën a waa xam nga album bi My Love moom may wax mbëggeel. Mm-hmm. jàngal sa parle de c'est mon histoire mm-hmm. parce que comme man école musique laa gënoon a bañ moom moom moo doon matière yi ma gënoon a bañ. <laughs> musique ak espagnol laa gënoon bañ ci matière yi. Mm-hmm. donc yàlla def tey. ba nekk euh, artiste donc genre sensibilisation la pour xale yi nga xam ne ñu ngi jàng bañ a taamu benn matière voilà parce que loo jàng rek euh, ëllëg dina la jëriñ donc jàngal bi moom sa parle de loolu euh, y a aussi mbooloo mbooloo c'est c'est c'est carrément le Sénégal nga xamante ni c'est pour le pouvoir et pour l'opposition ñu jéem a booloo bàyyi bi bàyyi xiiroo beeg ngaayo bi parce que seul seule l'union fait la force ku nekk la nga nekk rek dafa war a nekk li nga xamante ni euh, yow yow da nga ci war a nekk leader moom mooy njiit. voilà te te njiit boo ko nekkee je pense que dafa war a am taxaw boo war a taxaw. parce que aussi les sénégalais ne sont pas fous ñëpp a ngi ibbi seen bët ñëpp ñëpp a ngi xool te nit te nit je pense que moment bi euh, war nañu xam ñi leen di nax. ak ñi nga xam ne ñoo leen di wax dëgg donc xiiroo beeg ŋaayoo beeg. tas bi ça résout pas notre problème parce que ñoom ñëpp je pense que seen but moom mooy defar le Sénégal mais nañu booloo jéem a jéem ko rafetal jéem ko jekkal ak yooyu donc mbooloo ça parle de loolu y a aussi le morceau Sénégal émergent qui parle du plan Sénégal émergent euh, euh, mu nekk plan boo xamante ni président moo ko def pour les Sénégalais euh, mu nekk plan bu ma am confiance mu plan bu ma mu nekk plan bu ma gëm ma way ko voilà <laughs> euh, Sénégal émergent euh, muy rek la nouvelle vidéo de Aram Thioy euh, bi nga xam ni moom la dubbee sax l'album et on revient sur le plateau jógal jot na bul tiit bàyyi sa waaw jógal balaa jot na bul tiit bàyyi sa waaw jógal struggle, Chamba. otoraay mu gaaw te loolu jumtukaay yu bees a bees waa jàmbaar ndax pare nañu émergence ci sunu wala ngaay émergence ci sunu réew développer l'industrie teranga dellu see émergence ci ko pratiquement réalisation président Macky Sall ngi ci euh, plan bi la moo tax nga ni plan bi euh, doy na la aram et est-ce que euh, tey jii je dirais souffrance su yi yaa ngi ci bàyyi xel est-ce que euh, tout est rose pourquoi le choix nga ñëw rek nga ni ok plan bi wala bilan. <laughs> un peu bi def bilan le président. président. waaw du ma ne tout rose parce que parce que même États-Unis nga xam ne moom mooy première puissance mondiale sax euh, ñi fay dund duñu ne tout est rose donc euh, fépp am des difficultés Sénégal nag def ci nekk dëkk bu ci gën a ndaw ci monde bi boo xamante ni yàlla def ne ne que am nañu lu ñu am am am nañu lu ñu amul mais on peut pas tout avoir il ñu bàyyi naxante bi xalaat ni Sénégal da nga fiy toog. di dundu paradis di dund loo xamante ni ça n'existe pas euh, sunu njiit yi ñu fi nekk li ñu mën a def mooy jéem a xool li nga xamante ni loolu la ñu am pour teg ko le Sénégal n'est pas un pays développé li may faral di wax. moo tax ma ne sénégalais dañu war a muus. Euh, parce que aussi parole pol politicien ku ci nekk da ngay wax pour ton propre intérêt mais les réalités sont là. le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres du monde ci la bokk. Mm-hmm. les vingt cinq plus pays les vingt cinq pauvres du monde mais quand même. Mm-hmm. avec ça sunu président teg benn plan boo xamante ni plan boo xamante ni nekkul plan ne xembaay mm-hmm. parce que plan la boo xamante ni mi ngi nekk en chantier am na ci yoo xamante ni ñu ngi ci am na yoo xam ne mi ngi nekk ci yoon mais c'est un bon plan boo xamante ni nee na pour fii ak 2035 mais dañuy ñaan yàlla même su fekkee ni lépp sottiwul sax. keneen bu ñëwee mu àggale li ci des mais bëgguma ñuy ñu euh, yaa l'autre jour am ku ma yónnee message ne ma xanaa plan Sénégal émergent bi ngay woy bokkul ak Sénégal bi may dund ma ne ko bi may woy nag boobu la président bëgg mu mel noonu te dañuy ñaan ñu tal ko fekkee ko ba Sénégal mën a demee noonu parce que moom parce que loolooy plan bi. kon kon ah, c'est normal. Okay. non peut-être dañu comprendre xam xam nga Sénégalais aussi il faut nga leen di expliquer ñuy comprendre. gars yi neen da nga jot xaalis quoi. ah <laughs> xaal xaalis de bi ma jot moom mooy xanaa bi ma sama jëkkër jox. waaw mais jotuma xaalisu kenn hmm. waaw. déggoo li ma la ba léegi. <laughs> <laughs> bu ñëwee peut-être ba sedd la mm. mais man je l'avais pas fait pour ça parce que je pense que su ma ko doon def pour loolu dinaa dem vers ñoom te xam naa ni may demee vers ñoom pour ñu financer ko mais c'est pas que je cherchais man maa ko def de ci sama biir album sax laa ko dugal man maa ko xool jàng ko sentir ko def ko ci sama xaalisu bopp mm. am na sax ñoo xamante ne bi ma koy def ñu ngi naan ma pour naa ko yëg booy dugg studio naa ko yëg waxuma ko kenn li may wax dama koy wax ñëpp ak may dégg. Ah, ñoom am nañu voilà voilà ñoo xam ne ñu ngi doon wax que soo koy def pour naa ko yëg mais waxuma ko kenn dam c'est juste une participation ci li nga xamante ni président mi ngi koy def ma sentir ko en tant que leader d'opinion woy ko surtout c'est tout. Mhm. Euh, léegi bu ñu ñëwee si album bi également euh, génne goo ko lu tax lu tax génne goo ko euh, la lan ngay xaar wala dafa am benn plan benn stratégie boobu bu teg. waaw dafa am benn stratégie bu ma bëgg def parce que comme dama fi géej nag mhm. DJ dama fi xaw a géej tuuti te comme c'est un album de huit titres yoo xam dama ko jagleel fans yi bëggoon naa nag duma ko ñëw rek génnee ko nii. bëggoon naa organiser benn retrouvaille boo xamante ni dama koy am ak ñoom mm. donc c'est un projet boo xamante ni kii laa maa ngi ñaan yàlla ñu egg si si jàmm peut-être euh, su boobaa dinaa ko gën a fësal mais loolu moo tax bëgguma ko jël nii xëy génne ko te am na am na ay projet yoo xamante ni maa ngi si peut-être bu sottee du duma ko sax jaay peut-être dama leen koy may bégee leen ko pour longue absence bi nga xamante ni laa fi def. Mhm. est-ce que yaa euh, di jouer. ah mais bien sûr ah euh, bien sûr. maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci parce que su ma koy génn aussi il faut ma tëggal gars yi genre live. Mm-hmm. et puis à de la nag après ci lay doog a fan laay commencé jouer incha allah. <laughs> Euh, bàyyi woo leen fi woon sax. Mhm. ba nga ba nga ba nga voyagé. ñu siiwuñu ma fekk leen fii même presque nekk la scène ah. tey naka nga ban jàngat nga ci am. ah mais bien. ak loo leen di wax. c'est juste bien. Mm. c'est bien man daal moom je pense que musique ouverture la. Mm-hmm. ñëpp ci xaj. Mm-hmm. ku nekk rek danga ci bay sa wax ku nekk am nga même bu dee benn nit ku la bëgg sax mm-hmm. mi ngi ci donc amul frontière saturation bi ñuy wax nag laa gisul. parce que la musique n'est pas saturée amul sax ay <laughs> man boog damaa gisul sax ay waykat yu bari ci biir Sénégal comparé aux autres pays africains ñun ñooy minime ñi nga xamante ni ñoo fi nekk di way te ku jóg ñu ne la la musique est saturée peut-être ni ñu koy doxalee moom moo baaxul. ok waaw yoon bi baaxul. waaw peut-être yoon bi baaxul parce que xam nga tam su fekkee danga nga bëgg ñëw rek euh, nga ñëw def benn single nga génnee ko nga def ko clip après nga dem toog mais loolu doo ci am dara. keneen ñëwaat génne benn single teg après génn dem toog doo am dara ah, parce que musique aussi dafa am suivi waaw dafa am suivi benn label moo fi nekk euh, ah. loolu aussi euh, loolu aussi c'est euh, vrai boobu rek fi nekk sax nag ah. boobu rek fi nekk waaw mais nag mais nag looloo fi ma si nekk <laughs> depuis depuis ñu nekk ci monde musical bi je pense que li nga xamante ni loolu moo fi jógee ce son les distributeurs de cassettes de CD quoi ñoo ñoo fi nekkatul mais label bi fi nekk moom moo fi mës a nekk man boog musuma gis beneen label à part studio mille nga xamante ni man sama premier album ñoom ñoo ko traduit amoon na amoon na waaw peut-être affaire yi doxatul comme ni mu daan doxee ci ñoom loolu laay wax ma ne peut-être dafa doxatul comme ni mu doon doxee ci ñoom mais nag loolu yàgg na fi parce que même bi ñuy wax ay piraterie ak yooyu yëpp euh, gars yaa ngi fi woon mais xam naa léegi dafa gën a grave avec la nouvelle technologie c'est pas évident di yomb non defaguma si dara def defaguma sax tirage. ah ah oui j'ai ah, <laughs> rek laa si après bu ñu wéetee naa la ko wax. Euh, voilà donc euh, léegi euh, est-ce que après yaa ngi envisage également de benn ay tournée pour pour faire la promotion de l'album. effectivement. Euh, yaa ngi koy tournée nationale ak internationale yëpp. waaw parce que dama bëgg bàyyi juste rek ba ma génn ba pare sama projet bi après nag lay doog a plané gars yaa ngi sur sur sur le terrain pour euh, pour jéem a organiser les tournées maa ngi ci incha allah. ñooñu nekk sa ginnaaw. bu nice bu baax bu dëgër. Mm. waaw bu ma yéene nag. parce que xam nga nit ki da koy liggéeyal mais yéene ko gëm ko parce que artiste boo ko gëmul munoo ko defal dara mm. mais yàlla def na ñi nekk sama ginnaaw ñoom dañu ma gëm. solo la. My Lover ko am si extrait bu ndaw rek dellu si sur le plateau muy sa vidéo xam moom nga njëkk génne euh, bi nga xam mooy Sénégal émergent et on revient. mbëggeel mbëggeel lii la ki nga mun la sonal ki nga dalay jaral neel tekk danga ko bëgg bëgg la yow booy jéem bi dee te sottiwul da nga dellu fa nga jugee moo gën yow booy feebale ñax yu bëggante te sottiwul ñax yu miinante te sottiwul yi ma la digal baax na soo ko tànnee doo juum my lover ñeent yi ma la digal baax na man aram jàpp naa te du ma bàyyi xanaa lu des ci buur bi yàlla te lu dul buur bi yàlla nen la mbëggeel a ngi mbëggeel a ngi ci la mbëggeel a ngi mbëggeel donc dañuy euh, terminer ak My donc mm-hmm. euh, déjà euh, génn nga vidéo bi xam nga ni Sénégalais yi loo leen <laughs> loolu ah. euh, voilà euh, ndax euh, yan yan yan yan yan yan je dirais pas retombé mais aperçu nga si am. Love nag moom vraiment c'est un morceau qui cartonne. Mhm. parce que gars yi bëgg nañ ko télé yaa ngi koy teg rajo yaa ngi koy teg. yaa ngi snap quoi. <laughs> <laughs> gars yi moom xam nga rek mais nag loolu c'est parce que loolu loolu la artiste di ñaana ah, nga génne dara nit yi jël ko bëgg ko mm-hmm. euh, di ci def lu leen neex donc loolu rek ñoom lañ lañ ci am donc euh, kii bi fiexte bi ci man lay dellu si waat rek parce que tam nga gëj fii mm-hmm. ñëw euh, nga am boobu réception yombul mm-hmm. donc dama koy dam dama koy gërëmee waa Sénégal parce que tamit euh, mënoon na bañ a demee noonu accueil bi mënoon na bañ a demee noonu ñu bëri ñu ngi ragal a dellu si parce que ñemewuñu parce que dañuy dellu si tuuti avec la tendance de kii ñu daw mais vraiment euh, man boog c'est pas ce que j'ai senti parce que man dafa mel ni que mus musuma fi jugee vraiment mu nekk nag loo xamante ni lu ma neex la et puis maay nag xam naa euh, peut-être li <laughs> peut ñi ciy gis seen waa léegi ma dagg foofu yow lan nga ma waxoon lan lan nga ma waxoon <laughs> yow xam nga yow ah, pourtant am na vidéo boo xam ne def def naa ko mais gars yi duñu duñ nga teg de ah Sénégal émergent <laughs> non yeneen télé yi xam nga façon euh, bu ñu on va terminer avec euh, euh, Bintou ta bi nga mhm. xam ni da nga koo da ngeen dépendre mhm. donc Daoud Way naka nga découvrir moom mi am El la voix. waaw moom na bi ma nekkee US la ma daan. man ak moom bu ñu daan échangeante. Mhm. des fois dafa daan def ay vocal di ma ko yónnee. di way di ma ko yónnee. ma sentir ko nag ma xam ne que kii ku ko ku bon ku ko encouragé dina ci sore mhm. euh, mais moom jeu rek pour moment ah. jeu rek la ko def hmm? jeu <laughs> la ko def ah parce que moom xam nga déjà xale la xale la xale la mais mais bon jeu la peut-être dafa nekk ci moom ba pare mu bëgg wayantu mm-hmm. di way di way di way waaw man xam nga nag yooyu moom duma ci attardé wu pas parce que moom la moom mooy xool lu mu sentir bu dee def ci sentir percé awma ci problème bu dee itam pas passion la woon mu def lii aw ma ci benn problème. moom dinañ wax lu leer de façon dinañ ko invité. peut-être bu ngeen ko invité moom dina la ci dina la ci leeral. <laughs> Euh, euh, bon voilà donc dina leer dina leer. Euh, donc Aram ñu lay jaajëfal. Mhm. su fekkee ni am lu ma la posé wu donc bëgg wax benn message boobu sans <laughs> lancer say soppe wala Sénégalais yi wala africains yi. la monde entier. le monde entier waaw c'est juste pour wax leen rek ne que maa remercier. Euh, képp ki nga xam ne mi ngi jàpp ci affaire bi parce que dama gis ni que gaa yi ngi siy jàpp bu baax a mu doon lu ma neex euh, euh, c'était pas évident li may faral di wax mais comme ñoom ñoo ko dëggal rek dama leen ci gërëm bu baax a baax a baax di jaajëfal ñëpp. DJ yow xam nga maa ngi yow dafa yàgg <laughs> di la voilà lu yàgg rek dëgg la <laughs> ah! <laughs> ak a yàgg <laughs> moo tax la saa bu la neexee mais fexeel ba booy wane rek nga wane wale sa bos <laughs> nga bañ a dagg sa bos ah parce parce parce que yow fii ma daan taxaw yow da nga daan taxaw à gauche mu leer comme ça rek voilà gauche wala droite comme nii rek comme nii nga ma gisee. ah mais bien sûr carax di dem di dox samay soxla. waaw comme personne normale ah comme personne normale li ñëpp di def li jigéen ñëpp di def <laughs> su may génn daal lay xaw a kii hmm. mais man chez moi je kii maquille même pas. dinaa la bett inchallah. booboo may neex. booboo may neex. naturellement comme toutes les femmes normales. <laughs> mais kontaan nañu merci beaucoup. mais quand tout le monde di di la di la remercier. di remercier euh, borom kër gi ma sekk euh, borom fondateur. Euh, kër Rasoul maa ngi koy ziar ndax moom sama mag la dafa yàgg moom tam. moom moom du léegi la ñu àddina boole mais man nag moom presque mën naa ne bokk na ci ñi ma yar. doy mu nekk sama càmmiñ nag mu nekk ku baax. di ko ñaanal yàlla li initiative bi nga xamante ni moom la teg yàlla na ko ko yàlla gën ko ci dëgëral gën ko ci dooleel ba li nga xamante ni loolu moo tax mu am ko loolu moo tax mu koy def yàlla na ci am résultat yi nga xamante ni yooyu la ciy séntu waaw loolu daal laa koy ñaanal en tant que mu nekk sama frère di remercier waat Sénégal yëpp di leen ne album bi et bientôt dina nekk sera bientôt sur le marché euh, au fur et à mesure du temps xam naa dinaa gën a fësal projet yi nga xamante ni moom laa nara def ak ñoom te incha allah je sais que ça va les plaire. papi <laughs> ak lan. Diop Moustapha Diop. papi à moi ah. man tam je maa ngi koy gërëm bu baax ndax lépp moom la. Mm-hmm. moo nekk ci ginnaaw. moom moo ma dooleel moom moo may fit. xam xam nga gaa yaa ngi naan ah, aram dafa ñëw ak fit mais fit bi yëpp moom la. moo la kidnappé moom moo ma may fit moom moo ma dooleel moom moom ma puus. Eh. dégg nga di ci jàpp nag bu baax a baax a baax. ci dooleem ci ci yéeneem ci alalam. yàlla yàlla jubale leen yàlla fa leen cat. amin amin amin yàlla yokk a baax. et prochainement si beneen numéro ak beneen daraan incha allah. lu la neex neex na ma te loo bëgg bëgg naa ko loo bañ bëgguma man te loo bëgg bëgg naa